su ëllëgee danga dégg yéeféer ne yaa layte nii kuntu turaba yàlla aka neexoon ma nekk poussière nekk pënd rek dem j'aimerais être poussière fii du yomba de nekkal poussière fii balaa ngay dem ndem mën na nekk nekkal suuf fii balaa ngay dem ndem mën na nekk lan mooy suuf nag muñ kët la bari na sutura te ku dal la nekk ko ci wàlla woowa doomu aadama su defaree boppam dara gënu ko waaye su yàqee boppam dara gënu ko yées ndax xol ba day bon te du bëggal kenn lu baax su boobaa yàqu na malaakaa fi ne ak jinni ak nit leneen loo gis pour nit rek la wala karam naa bani aadama ja moo tax doomu aadama soo amee ñaar fukki xet ak juróom yàlla won na luy ne yàllay buray borom yàlla rek lañu war a jaamu nan jaamu yàlla balaa bis ba dikk yàlla ya kuntu turaba